Pisas! Pisas! Pisas! Pisas! nekk di jooy sax nekk ma yàq. waaye lu xew. Eh, taxawal nii eh, ana sa noon boobu. ana kii ba. sama noon bi ana mu. ana fal ma ah! noon bi. maman. waaw woo ko si loolu. maman. waaye loolu la ñu wax ñoom ci fal bi. Eh, xoolal xoolal may ma ba ma pare. maa la woo doo ma déglu. wala kañ la puissance yaa ma woo lan la. eh woowu la man mii maa la woo laaw maa la woo. léegi lu ñu wax ñoom. yow. yow kañ sama wooyee di nga jox baa baa nga wax noonu di mel ni ku amee aas. man maay ki jox man maay ki wax yow. léegi lu ñu wax sama noonu sama noonu bon yi ngeen doon yow xamoon naa ne yow di nga ma fexeel yow. cour crème laa jóge léegi nii. kenn waxul la cour crème léegi laa ci xam. pour këram laa jugee. léegi lu wax dañ maa woo sànq ni na ma mën sama dossier yëpp ah ni nga yow man ma yóbbu sama carte man ma yaakaar maa sama carte d'identité ma yegg vérifié ba sonn gisuma dara mu ñëwaat ci kër gi bañ ngeen ma. ma vérifié ba sonn eh xoolal Géna dama xool dama leen muus de. ah kii fàlluñu ko. dama leen muus de بياس ام تاري ترابا ني ما فال ما جس جس ما قلت لك انا دي دي بوب يوم نقول يوم لا يوخ اليوم بانك صبار ما يوخك يوم جاك يوم لا يوم تبا موي مو ينم يا استاذ في مكان دار مرمي مرمي نال الاخير كده يوم في بيسانس يورنا مورنا ما دتنا اليوم ها يورنا ما دتنا اليوم بمنا كتير نخبر بمن جاب لي نخبر ما ندير له اي فر يا ولد مالني مالني بري بخون ابا ما خوما استاذ stade Léopold Sédar Senghor ju fas yéeneel juutu rek te xam ne perte nga ca fa yàllaaw yow doo voté. waaye ndurowoo kuy voté. député buñ ko naroon fal. am ma député xaw a mais yow moom sa sa falu wàcc nga yow. jë jë jë jë damit si. waaw léegi lan lañ wax. waaw xoolal waxuñu juul li ñu wax moo xool <laughs> man sama carte dafa réer man nan nan laay faloo man nan laay doon candidat peut-être sama carte d'identité réer. waaye léegi dafa ndànk kon yow seet yow. kuy di xullee ko ba a ni koo ni fajar. waaye léegi dégluwoon waaye yéen waaye yow ndekete yow. yow yow ko huit huit gi yëpp yoroo carte d'identité. yor naa carte dafa réer. wala am ak yéen a yow yow xool yow xool <laughs> eh, puissance dama lay ma lay xool dama lay ñuul rek yow. yooyu bàyyi sa saaga yi amal ma fii ma wax la déglu ma fii xam ne du yombee noonu bu naroon yomb rek ma rey kaña man déglu ma fi yow xam nga ne doo bokk ci élection duñ la voté. doo voté tey doo voté suba. may ma sama jàmm ngay appel boo rusee da ngay jël appel. te ba ma woote say ñàkk fayda yi dégg man la président man la waaw. président waaw fa laa jógee léegi pour crème waaw. nekkul keneen. léegi ñoom lu ñu wax. doon candidat. <laughs> désolé moo mën a gëm dem. pour la ma mënoon candidat président yooyu pour la ma mënoon candidat. waaye nag sama kàddu bu réer réer ma ma ma ma yónnoon candidat. may ne sama samay noonu nit ñi doon. président man mii maa am carte d'identité am ñu am carte d'identité kii bu xëyee du sang amul personnalité amul dignité man mi am dignité jël ma fal ma ma doxal. ca ba muy moom nag dëgg neexul ah jëlal numéro bi 78 la ci des naa la ko jox ci suuf ca ba muy moom yow nee naa la man maa la dàq bari te yéen. ii daa ah, ma juutal ko. nii sama der ngay yàq yow. yàllal fële. sama der ngay yàq. jugal fii. le président kenn gënu koo doon defee moom xale bu jigéen bi di ko di ko di ko jël muy nangu kenn gënu koo jël moom moom leer na ma noonu dafa dafa nopp booy mais mais affaire du yombee nii affaire du yombee nii dama koy clamé. di plainte laay def damay def plainte par force par force damay falu waaye lii lii sama noonu man sama noonu laay xalaat man kenn ku yow yàgg yow ma yàgg yaa ma fa yàggal yow ma yàgg rek yaa ma fa yàggal yow mu ne ma politique sax laay bàyyi man politique laay bàyyi mu jeex man waykat laay doon yi sama yaakaar gépp tas na rek waa réew mi léegi la mooy lii